dinañ ci ñëwaat est-ce que mën nga ñu expliquer un peu le processus. bien sûr euh, process exploration bi. waaw jusqu'à la commercialisation jusqu'à la commercialisation. merci mu nekk question boo xamante ne bu am importance la parce que man damay wax souvent sax ñun avant que ñuy wax ci contrat yi war nañ mën a xool processus bi nga xamante mooy question bi nga posé premièrement dañuy dañuy dañuy def li nga xamante ni mooy prospection. Euh, di ses hydrocarbures da ngay parce que compagnie bi bu ñëwee day dem ci Petrosen Petrosen dafa yor ay base moo yor euh, moo yor banque de données yi nga xamante ni mooy suñu bassin sédimentaire bi dañ ko répartir par des blocs blocs yooyu noonu nag c'est des compagnies yoo xamante ne euh, yor nañ financement am nañ doole bi am nañ les matériaux yi nga xamante ni ñoo nécessaire pour ñëw def prospection pétrolière bi ñoom ñooy ñëw demander état mu jox leen li nga xamante ne des autorisations de d'exploration ok si biir autorisation yooyu nag bu lu ñu joxe autorisation ba pare nga dem si kii euh, Petrosen mu jaay la benn bloc yow compagnie bi da ngay dem def li nga xamante ni mooy recherche est-ce que da nga trouver pétrole ci bloc bi nga jën ou pas. boo trouvé kii nii euh, boo trouvé pétrole nga doog a retourné wax ci état bi ngeen signé des contrat yoo xamante ni partage de production ou bien ngeen def évaluation en fait est-ce que pétrole bi ngeen trouvé bu conventionnel la ou bu non conventionnel parce que mën nga am benn kii benn jugement. mu doon onshore wala offshore mais bu jugement bi boo xoolee peut-être que nekkul jugement boo xamante ne bu conventionnel la donc tu es obligé boo defee évaluation bi mu leer na yow amul am rentabilité tu es nga abandonner li nga xamante ni mooy bloc boobu noonu. Mm-hmm. wala nga xaar yeneen euh, nga xaar yeneen euh, nga xaar quelques années après pour mu mën a conventionnel. loolu nag boo ci paree ba pare euh, boo defee évaluation bi def développement bi ba mu leer na la yow actuellement moom c'est rentable donc. mën nga ci gis sa bopp compagnie bi dina ci gis boppam Petrosen ainsi que l' état du Sénégal dina ci gis boppam ñu mën a doog dem ci li nga xamante ni moom li ñuy wax phase de production te bul fàtte ne dafa am ñaari filiale dafa am filiale amoo ak filiale aval filiale amoo bi mooy li nga xamante moom moo jógee ci jënd jënd jënd benn bloc ba nga ñëw li li nga xamante euh, exploration bi ak production bi boo ñëwee si production bi foofu la ñu commencé installer de plateformes pétrolières bu dee offshore la ñu installer benn plateforme bu dee onshore ñu ñu installer foofu des forages yoo xamante ni ñoom ñooy def extraction li nga xamante ni mm, mm, merci ñooy extraire li nga xamante ni mooy hydrocarbures yooyu noonu xamante ni dañ leen trouver à si profondeur suuf si des kilomètres et des kilomètres te mu leer na la c'est des éléments yoo xamante lañ ko mën a insérer en fait que mun mën a ŋàcc noonu mu daal di mu mhm. mooy ñu stocké ko ci bato yi nga xamante danga nga fay dégg des fois FPSO nga xamante ne euh, récemment bu euh, Sangomar ñëw na ainsi que bu kii nii euh, bu GTA bu aussi ñëw na yooyu comme que ñëw na après yooyu ñoom ñooy def stock bi stock bi bu ñu ah, koy defee foofu lañ koy conserver en ñu mën ko def di ci ay citerne ou bien ñu mën ko def ci ay pipeline en fait que mu mën a ñëw en onshore ñu mën ko yóbbu dans les raffineries bu dem foofu nag bu demee si raffinerie bi on est pris dans le filial amont mais on est oui on est pris dans le filial amont mais on est en mm-hmm. bi foofu la ñuy defee la nga xamante ne mooy raffinage bi bu ñu raffiné ba pare nag si la ñuy doog jël li nga xamante mooy hydrocarbures wala pétrole bi euh, ak euh, produit fini yi nga xamante ne am nañ ko si pétrole bi mooy les dérivés mhm. ñu ko def dans le marché public afin que mu mën a jaar dans les stations bi dem si centrale des mu dem si bi bu ci des mu dem euh, dans les maisons mooy gaz butane yi ainsi mhm. et cetera et cetera ak yeneen produits yi nga xamante ne am na leneen luñ ko mën a defaree kon affaire bi du pétrole kese day am mm. yeneen dérive yu nga xamante ni mën nañ ko utiliser ci yeneen i fin merci te loolu moo ëpp importance. ay pétrole am na solo.